dinañ ci def focus bu am solo itam loolu yëpp ñu war ko waxtaanee ci suñu mondial. sama gars yi jour ji moins 18. La coupe du monde bi gën naa jege si waaye leneen li nga xamné itam jege na té ñu wax ko bàyyi xel bu baax moy liste de joueurs bu Aliou Cissé le 11 novembre lu koy publier ci écho de la tanière nak dañuy ñëw ci ki nga xamné moy suñu gardien de but bi Edouard Mendy fi mu toll ni commence muy commencé waat di retrouver sa place de titulaire avec les Blues de Chelsea xam ngeen né week-end bi passé dugg na ci deuxième mi-temps bi Chelsea ak Brighton Edouard Mendy nak day def retouram en Ligue des Champions titulaire ak Chelsea li nga xamné ba légui tamit écho de la tanière la

xale Sheffield United bi tay nak nag mu ngi enchaîné bi ndaxte euh, samedi bi passé mom Iliman Ndiaye dafa dugal contre West Brom ñu ne way mardi bi mu enchaîné wat dugal contre Bristol City euh, fi mu nak Iliman mu ngi ci huit bi yo xamné ne nako en 15 matchs lan la Sénégalais di xaar ci lé joueur ak équipe nationale bi ban rôle la fa wara am rawati na ci Qatar 2022 tàllal nañ suñu micro sénégalais ñu wax ñu lan la ñuy xaar ci Iliman est-ce yaa ngi suivre jour bi ñuy woowee Ilimane Ndiaye est-ce que xam nga ko. Ilimane waaw xam naa ci moom tuuti nag quoi parce que seetaan naa ay documentaire am quoi interview am quoi gars def si moom interview waaw franchement parler li ma gis si moom gis naa ne joueur bu baax la joueur bu am talent la joueur boo xamante bi mooy loolu noonu quoi mun naa amoon njëriñ équipe bi quoi parce que instant bi nii nii dañu toll ci phase bi nga xamante bi. dañu war a indiwaat yeneen joueurs yi nga xamante bi xam nga ay joueurs yu am talent la ba pare nekk xale quoi. mais lu tax ma laaj la ci Elimane parce que fi toll nii club dox na lool mu ngi enchaîné but yi mais ñu bëri jàpp ne équipe nationale peut-être se joxagu ko confiance ak temps de jeu bi nga xam ne moom la ko war a jox pour peut-être mu gën a wane boppam est-ce que da ngay partager avis boobu. waaw mais Cissé laa wax moom xam na li muy def moom li si xelam ñun waruñ ko si jiitu ñun nag dañoo am suñu suñu suñu pour wax rek lañ am mais Cissé xam na li si xelam. te Cissé tamit estafam euh, baax na estafam rafet na xëy na dañ koy jiital ci bopp bi waaye moom tamit lu muy def dina am ñum diisoog dina am ñum si waxtaanal parce que euh, kii nu mu tuddati comment t'appelles comment t'appelles comment t'appelles kii euh, ki ngay wax ni Ilimane baax na baax na te day dem xëy na coolee fi nekk nii rek mais Cissé Cissé Cissé nelawul du nelaw. am na coach foog nga am audace quoi coach foog nga am audace. culture de jeu gagne, En moins de football, je changer d'un moment à un autre. Il ne faut pas gagner un 11 type. 11 type de football, c'est un tout. Le football change d'un moment à un autre. Donc, il y a temps, là, nous avons temps de jeu. Ben 5 000, 10 000 qui chaque jour, presque 1 000 pour le football. Quoi. Au moins, match récemment passé contre, euh, je ne me rappelle plus, match amical contre l'Iran. Donc, il y a temps de jeu pour le football. Parce que nous avons un chef de folie, nous avons un match qui est je suis normal suis excentré je suis attaquant di suis ba pare bu ñëwee fii nga 5 minutes 10 minutes. Ah, ba vous ci suñu mondial dañuy wax ci li nga xamné nak info mondial bi tay nak dama bëgg ñu def focus ci li nga équipe africaine bi a une victoire dans une coupe du monde dañuy remonter ba 1978 loolu sore na Tunisie la won sen digganteeg Mexique tunisiens tunisien nak daal di gagné woon li nga xam moy Mexique 3 buts à 1 mu nekkoon une victoire historique équipe africaine njëkkoon am une victoire ci li nga xam moy coupe du monde de football Tunisie yemuñu ci won ndax ci édition bobu xaw tuuti rek ñu qualifier ci li nga xam moy tour ba ca dess ndax ci sen match bi nga xam mom moom la ñu joué ak Pologne malheureusement tunisien yi Pologne daf leen door waye nak li jotoon am solo fofu moy sen 3e match ba Tunisie. Allemagne nga dajaloon champion du monde en titre ñëw équipe bu am doole ñu def machine nul 0 donc loolu dafay nekk info mondial waaye surtout rappel historique équipe africain yi yàgg nañ def ay jaloore ci li nga xam ne mooy coupe du monde bi. Ah, sama gars yi sànq wax naa leen ko yëg ngeen ni démb fédération bi publier nañu prix maillot yu bees yi maillot originaux yi nag laa wax waaye 45000 lañ koy jaay loolu nag xaw na cher. ñenn ñi jàpp nañ ne loolu bëri na donte sax du ñàkk am na ñoo xam ne dinañ ko mën a jënd waaye lu si mënti am dem nañ ko Colobane waxtaan ñi nga xam ne ñoom non seulement ay supporters lañ waaye dañuy jaay ay mayo ku si nekk nag ak na nga gisee yëf yi ñu dem xool nan lañ gisee boobu décision ak itam ndax marché bi fi mu toll nii mayo yi tuuru na ndax sénégalais yi ñu ngi dem di jënd ñu déglu leen ñëwaat ak yéen. yow personnellement pareegoo pour jënd mayo 45 000. non xalaatuma ko 45 mille xëy na ci ma am naa am na feneen fu ma ko mën a dugal quoi fu ci ay mayo ay affaire demee noonu. fédération bi prix boobu ñu wax ne 45 euh, mille mayo ci dëkk bi social social bi ñu nekk nii dafa xaw a yéeme quoi parce que 45 mille yooyu tey pour euh, benn sama genre yi pour ñu génne ko pour jënd ci mayo c'est tout à fait un problème. 45 mille la fédération di jaayee. ñoom buñ waaw loolu dafa seer dafa metti problème fédération bi xam nañ am na ñoo xam si dañ fay dem dañ koy jëndi parce que ñoom seen pot dafa foofu ñoom am nañ njëgu jënd loolu. mais ñun bo diké fi Colobane lo yor rek ñun dañ lay jaay moy ñun ça dépend ne sa poche bo boo yoree 5000 francs bo ñëwee am moyen bo yoree 3000 francs bo ñëwee da nga am moyen bo supporté. bo xolé qualité bobu ñuy jaay ak bi nekk ci marché bi c'est du pareil au même amul ben différence donc waroon nañ jëm wañi ba ñëpp gis. yow constat bobu nga def que qualité maye donte prix wouté na mais qualité bi c'est à peu près la même chose. franchement amul ben différence hein à vrai dire amul ben différence parce que man gis na maye yëpp quoi gis naa bële démb gis naa bële tamit ñu ñoo amuñu benn différence quoi. waaw franchement bu ñu sañoon tey jii nii équipe bi buy football sénégalais yëpp sol maillot quoi. Ah, suñu mondial nag xam ngeen ne chaque fois dañ koy jeexal ak rubrique fàttaliku waxtaanee nañ fi Sénégal Uruguay Sénégal Suède Sénégal France waaye Sénégal Danemark ñu bëri nag boo leen laajee rek dinañ ne ne Salif Diao moo dugaloon loolu moom ñëpp d'accord nañ si waaye sama gars yi le 6 juin 2002 match boobu bari woon na itam duel bëri woon na tension yéen a ngi fàttaliku numéro doowu Danemark bi Tof Ting borom ndel bu rëy bi moom El Hadj jàppante nañ fa jàppante yu métti ci terrain bi waaye match boobu li ma ci gën a neex mooy égalisation Salif Diao bi bii boobu ba léegi ci ñi ko fàttaliku ñu ngi koy waxtaanee mais nag balaa Salif Diao di égaliser kan moo dugaloon biiwu Danemark bi Thomasson attaquant bu rëy ba sur penalty ñu bëri jaaxle woon waaye nag Salif Diao l'homme du match keroog bii bu rëy la dugal mais action bi li ma ci gën a neex mooy fi mu démarré boo leen koy fàttaliku Henri Camara moo defoon tacle ci point de corner au Sénégal récupéré bal bi jóg passe El Hadj Ousseynou Diouf Diouf lu mu def déviation talonnaat bu rafet jox ko ki nga xam ne mooy Salif Diao mu jóg siggi pousse jox lu gauche magique Khalilou Fadiga mu dawal dawal dawal daal di taxaw siggi paas ki nga xam ne mooy Salif Diao boobu nag jël la porofondeur bi di daw lu mat Diao contrôlé extérieur du pied droit bii bu rëy ba léegi nag bii boobu dafa des ci li nga xam ne mooy archive yi waaye tey nag suñu rubrique fàttaliku dañoo tase supporter boo xam ne nag dafa am ay anecdote yu am solo yu ñu racontel ci jaar-jaaram ci 2002 waaye itam ci yenn joueurs yi nga xam ne ci génération 2002 boobu marqué nañ ko ñu dem seetaan ko déglu ko ñëwaat ak yéen. 2002. Euh, mën naa ne sax boo xoolee man ay télé yu bari wane nañ ma supporter bu mag laa ak jour bu ma xëyee saa bu Sénégal football caaya laay sol cerax lépp vert zone rouge la dem naa ba aéroport keroog bi ñuy jógee palais di ànd ak Abdoulaye Wade di dugg biir palais du ñu turne tourné Wade nañu bàyyi leen ñu ñëw keroog vol bi wàcc euh, tubaab yi wàcc man maa leen njëkk a jaay ay ay dosaar dosaar vert zone rouge man maa leen ko njëkk a jaay jaay leen ko xaas bu bari Papa Thione Seck waaw maa ngi koy jaale tamit sama xarit Wally sek maa ngi koy jaale parce que le jour si moom it jënd na ci man moyens yu bëri mu ngi dugg ci otoom sol benn Cap Vert zone rouge zibaléeg ñun ñu kontaan du ma fàtte image boobu du ma fàtte image boobu di ko jaale Wally tamit Wally moom war na dégg suñu message war na ñëw Colobane seet si Moustapha njool mi Pape Bouba Diop moo ma marqué woon parce que dama dëkkoon ak moom di dem asalem di dem seen kër Henri Camara jaar yu mu daan takk dama ko doon jaay dama leen daan fekk ba Ngor di len jaay jaaru asiyé yi nga xamné dañ ko doon jaay fi koloban ay henri ay euh nuñ ko wax ay elas diouf ñom ñep am ak ñom daje nañ quoi ma jaay leen ay jaaru gis sam bopp ñu kontaan yëkkate xaalis jox ma. dégg ngeen ko kii moom xam ngeen ne ku yàgg suivre équipe nationale bu Sénégal la am na ci itam ay jaar-jaar yu am solo yoo xam ne marqué na ko si ñun ak yéen nii lay demee rek saa su ne dinañ fexe rek ba ñëpp gis si seen bopp ñu jàpp ne rek Qatar nag ñëw na ba noppi nañu waajal suñu bopp bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm jaa ngeen jëf.